monnaie yu boppam la gis nga boo xoolee dina gis jamono joo xam ne julli kese mën na yóbbu nit àjjana lan moo tax parce que di nga gis ci jamono jooju xeetu caaxaan ak jaxasoo goo xam ni nit effort bi mu war a def ak yitte gi mu war a def pour rek taxaw jàpp julli dana bëri foofu ci contexte boobu julli googu doo ko doo ko bokkale doo ko doo ko euh, boole ak koo xam ne par exemple suñu jamono ji la wala jamono bu gën a yàgg ndax xëy na caaxaan bëri na suñu jamono mais est-ce que di nga mën a comparer niveau caaxaan yi cest à que da ngay dem jaamu yàlla di gën a jafe ce qui ci jamono jooju valeuru jaamu yàlla gi day yokk yaa ngi comprendre comme nag valeur gi day yokk mais tamit. risque bi day yokk lan moo tax caaxaan yi gën naa bëri mën nga xëy tooñ yàlla te doo ko yëg ndax ni ni société bi di tëddoo bu boobaal la di nga xëy def loo xam ne jàpp nga ne lu normal la fekk ne yàlla moo sopp ko ce qui fait par compensation il faut que li ngay def pour sonne ko sa diggante ak sa borom valeur am yokk moo tax chiffres yi mën nañ bañ a changer mais valeuru jaamu yàlla gi day changer di nga toog jamono ñu la cent dollars soixante mille la nga toog beneen jamono ñu la cent dollars soixante dix mille la ainsi de suite nga toog la la parce que valeur bi mooy bari ci cadre boobu ba tey euh, dafa am lu euh, sa góor gi jàngale woon ci euh, muy diine muy tariqa bu si nekk dafay am fu muy tolloo ci masaafa maddiyam ak ci masaafa maanawiyam est-ce que donc adaptabilité boobu mën nañ ko déggee ci masaafa maanawiya boobu noonu ma tudd. ah mais bien sûr bien sûr parce que tamit ah loo gis day évoluer ndax loolu bokk na ci na yàlla yi mu gën a fonk ndax ci boppam la ko njëkkee yàlla du ko statique du ko statique yàlla man damay wax ni sax bam ñuy xamal boppam en tant que yàlla. fekk na moom déjà passé na cadre divinité ndegam moom ci boppam la ko njëkkee masaak ci leneen te lépp luy jëriñ nit it façon boobu lay doon façon boobu lay doon bien sûr ko mën dugg ci cadre boobu ah man bokk ci sama dégg-dégg. waaw am na ku laaj mu ne da nga tudd ci aller retour ne Dieu n'est ni foncièrement bon ni foncièrement mauvais il est un équilibre des deux et c'est ce qui fait sa supériorité et son unicité. loolu mu ne lan lañ ko mën a déggee ci connexion bi ak nan lañ ko mën a déggee ci concept sunna machia ak iraada ah pourtant yow mën naa dégg nañ ko xool tey ji ci ko yore téléphone am am internet bu fekkee da nga jóg pour ut si xam-xam beesal si sa ñaan mais di nga xam fan ngay dugg pour am ko waaw wala déet bu fekkee nag da ngaa bëgg a dugg seetaan ay video di ree toog topp caaxaan yi topp kaay ak histoire yoo xam ne dara wóor la ci ah bu la neexee def ko waaw wala de c'est le même principe le même principe dafa fekk ni yàlla bu la farata yi téelee mën na ci ànd ak yow bu la caaxaan yi téelee ah dalay bàyyi rek nga doxal wala l'essentiel da nga bàyyi xel ni boo demee ba ci kanam moom it dina am lu la ci fekk essentiellement bokk man noonu laa ko gisee lan moo tax yàlla li tax kenn mënu ko àtte ci mbaax ak bon c'est parce que dafa ko daf ko ëpp ba pare ndax koo xam ne bu lu mu xas ba def léegi lu mu doy waa doy lu mu diis diis lu mu rëy rëy fam ko defee mën na ko mën na ko faa dindi facilement kooku mbaax ak bon mënu ko tënk coobalam rek ko mën a tënk ce qui fait que même sunna gi machia bi iraada bi yooyu tamit mënul mënul mënul mënul dugg ci cadre boobu parce que yooyu yëpp ci yàlla la dépendre lu mu ci tëral na mu ko bëggee noonu la mën a demee moo tax mbaax naag bon naag demee na ni demeewul ni loolu du problème bi lan la yàlla bëgg mooy wax ci lan la si jublu lan la visé foofu la affaire bi nekk ak kenn ku si nekk lan moo siy sa rôle yaakaar naa loolu gën a nekk farata. Ah, ñu ngi sax jëm vers la fin. waaye dafa am mbokk bu laajte ci un peu catégorisation bi ñu defoon mu ne comment naka lañu mën a comprendre musique di participer ci connection bi nga xam ne moom lay nit ki di am ak boroomam mu jël exemple Seydina Cheikh bi nga xam ni bu bëggaan euh, entrer en connexion en quelque sorte nee nañ dafa daan teg li nga xam dafa daan laaj li nga xam ne moom mooy orchestre bi donc si naka la musique war a mënee jëriñ nit ki par rapport ak connexion boobu noonu. parce que yàlla ñu ko jàngal musique yàlla yàlla ñu ko jàngal symphonie bi nit njëkk a dégg yàlla ko joué alastu bi rabbikum <laughs> ah wala da foog ne yàlla neexul baat symphonie boobu la ñuy njëkk a dégg musique bi foofu la tàmbalee musique bi foofu la tàmbalee ce qui fait que influence boobu mooy des ci nit ba léegi influence boobu mooy des ba léegi léegi nag wax ji mooy ku si nekk lan moo la yëkkati ci musique am na ñoo xam ni jóg fecc lañ yëkkati ci musique am na ñoo xam ni jóg caaxaan moo lañ yëkkati ci musique waaye am na ñoo xam ni musique lu mu neex neex lu mu am am solo lu mu lu mu yëngu-yëngu seen borom rek lañ ciy wut am na ñoo xam ne musique lu dul ñu dégg si lu leen ci jëriñ wala ñuy yëg ci seen bopp lu leen di fàttali seen borom duñ ko déglu léegi ñooñu est-ce que dañ leen koy tere est-ce leen koy tere wax la ne dafa xaraam ah lu jara a la parce que bu fekkee ñoom yàlla leen di fàttali nga bëgg leen ko tere ah dina compliqué moo tax foofu musique rôle boobu lay joué ku mel ni Seydina Cheikh ak ñeneen ñoo xam ne xëy na yàlla. baaxee na leen ci côté boobu ñu mën a am benn yëg-yëg bu ñu ci am benn connexion bu ñu ci am mais pour pourquoi pour pourquoi pas ñeneen danga ko am ci leneen ñeneen danga ko am ci leneen parce que ku si nekk ak li nga am affinité mu mën la yombalal sa diggante ak sa borom. d'accord euh, xam naa comme ni ñu ko waxee léegi waxtu bi moo ñuy xaw a njët tudd nañu verticalité tudd horizontalité. y aurait-il troisième voie